ni mbokk lañ ak ministère boo dem fii Sénégal ak muy intérieur muy affaire étrangère muy santé muy fépp foo dem looloo fa am ba kañ dafa jot li ñu kenn ku ne dañu dafa jot li ñu moom ñu téewal ko suñu bopp parce que dafa dafa jot suñuy ressources naturelles ñu dundee si suñu réew xam ne kat lii am nañ ko ñu si bénéficié wu dafa jot li nga xamante ni am nañ ko mu baax si réew mi ñu si jot normal ñun loolu lañ soxla lii la ñuy si président Macky Sall lii leen doon xaar mu réaliser daf si ñun jeunesse bi lii leen doon xaar mais tey jii xaaruñu woon kat muy muy dooleel góor jigéen ñi xaaruñu woon kat muy defal promotion ñoo xamante ni du yoon sax nit ñi di leen xam parce que gis ngeen ne maanaam jamono bi dafa dem fa toll foo xamante ni affaire nguuru Macky Sall gi gis ngeen li yéen fii gis si wàllu dooleel góor jigéen xoolal xeetu gi xeetu dooleel góor jigéen ngeen di gis si nguuru mag Sall gi ni mettee ñuy defal ay promotion góor jigéen te ji benn góor jigéen bu génnee sax daf benn vidéo live bu gàtt boo xëyee suba na nga gis ne di internet yëpp ngay partagé ñu bind ko ci journaux yi ñëpp di ko waxtaanee nga xam ne day dem ba yow loolu dootul garaawati su ñun parce que li tax dootul garaaw mooy ni ñu koy gisee chaque jour di ko gis di ko gis bu yàggee seen bi naan ah kon que lii garaawul fekk na lu garaaw la mi ñu rey fekk na am na ñu yeneen ñu war a waxal di di di di ñu dooleel feneen ak feneen. mais tey jii di dooleel ay góor jigéen yoo xamante ni tekkiwuñ dara ñoo xamante ne nii buñ tegee sa buñ tegee tànk jéggi dox ba dem sax yow nga ñëw teg sa tànk yàlla rëbb la yow te nag gis nga gis nga ñoom yàlla bu leen yàlla bu leen di mbuugal du xool ne kii lii la kii lii la ñëpp la siy boole maam ñenn ñi lii benn maaraa doon waraan ñenn ñi day doon nattu si ñoom ñenn ñi mu doon mbuugal si ñoom loo rek laa bëgg Sénégal yëpp xam ko moo tax voilà li mooy li lii moo tax ñuy wax aussi foofu dañ fi doon laal point bu ndaw mais fi ñu fi ñuy daanelee si wàllu marché bi mooy ñu ngi woo Sénégal yëpp vendredi bii di ñëw na ñëpp génn nañ gars yi nañ partage vidéo yi ñëpp jot ko Sénégal yëpp génn donte ne jeunesse bi ñu am sax amuñu jeunesse boo xam ne jeunesse patriotisme la mais loolu rek lañ lañ amoon message boo xam ne ñu ngi leen koy lancé ñoom seen boor beneen bi dañu ñëw tuuti rek si si si si affaire Pape Alé Niang bi Pape xam ngeen ne dafa doon koo xamante ne nii gouvernement Macky Sall mooy essayé pour pour pour xool nu mu ko daanelee pour xool nu mu ko détruire pour xool nu mu ko yàqalee ba nga xamante ni Pape Alé Niang dootul mën a toogo di sax si télé naan da def émission parce que gis ngeen émission yi nga xam ne moo gën a mag émission yi Sénégal yi gën a xaar Pape Alé moo koy def nguuru Sénégal moo tax muy complot parce que accident bi mu def bërki démb dañu ne xoola nguuru Sénégal ñoom ñoo complot pour pour pour def ko accident boobu xamul nag nan la ko nan lañ ko dikkee mais accident bi si ñoom la jugee ba pare ñu jàpp ko ne dañ ko jàpp parce que dafa dàqali ko ak sagoom parce que dafa dafa jëfandikoo alcool ñu ñu yóbbu ko gendarmerie mu fanaan fa xëy yóbbu ko procureur xool niñ ko taateelee ba pare procureur bàyyi ko ne ko toppeedul la dara nga xam ne liñ ko doon tuumaal dara amu si mais loolu lépp nag dafa jot ngeen xam ne nguuru Sénégal moo nekk si yooyu parce que nguuru Sénégal jamono yi may wax yow nii bëggul kenn kuy yee sénès bi wala nga leen di wax loo xamante ne nii bu buñ ko déggee kat dinañ si yeewoo xam ne ñii nii ay tappale lañ nekk ak yoo xamante ni kenn xamu ko te ji képp ku nekk si loolu rek dinañ la jéem a détruire dinañ la jéem a yàqal dinañ la jéem a def lu ne may may ñaan sénégalais yi ñi nga xamante ni am nañ leen fi ñu xam leen si patriotisme bëgg seen réew taxaw di liggéey muy ay journalistes yi muy muy ay politiciens ku mel ni Sonko muy ay journalistes yi ku mel ni Pape Alé Niang muy keneen ak keneen ak keneen ba si ay musiciens nga xam ne nguuru Sénégal bëgguñ leen a gis ba si ay rapport yoo xamante ni buñ sonoon détruire leen voilà dafa jot jeunesse sénégalais yëpp jeunesse bu ne taxaw xeex xeex ngir sa réew te bañ a taxaw di ci xaar kenn parce que ñu taxaw di xaare benn Y'en a marre wala ñuy xaar benn Abdou Karim Gueye wala ñuy xaar benn Guy Marius Sagna pour mujj xeexal ñu ñooñu dañoo war a taxaw seen ginnaaw jàppale leen pousse leen pour ànd ak ñoom xeex bi te bañ a déglu ñi nga xamante ni dañuy jéem a détruire di ñu parce que am na ñoo xam ne nit ñi jug pour xeexal seen réew dañuy jug naan la noo kii gëmul dara kii xaalis lay wut kii lii rek lii kii day la ak gouvernement bi ñu loolu suñu yoon ne ñu li ñu war a li ñu engagé mooy ñi nga xamante ni ñi ngi xeex suñ ngir suñu réew di xeexal suñu réew ñu xam ne ñii ñu ngi teg benn jéego pour di defar réew mi dara ñu jàppale ñooñu mais pas ñu ñuy gëm loo naa ne non ñii c'est des corrompus Y'en a marre c'est des corrompus France dégage c'est des corrompus nangam ak nangam ñun gëmuñu yooyu parce que feeñ ñu gis ñoom ñi mën ay combat yoo xamante ni ñun dañ see gis suñu bopp rek ñun dañuy nekk seen ginnaaw di xeex ak ñoom loolu lañu war a nekk buñ gisee benn Ousmane Sonko di wax loo xamante ni lu lu ñu arrangé la arrangé réew mi voilà dañ koy jàppale bu ñu gisee benn benn Pape Alé di ko def voilà dañ koy jàppale comme que bu ñu gisee benn Abdou Karim Gueye di ko def wala benn Guy Marius Sagna ñooñu lañ war a jàppale Sénégal ñun ñoo war a taxaw ñooñu lañ war a jàppale ñi nga xamante ni ñii xeex ngir suñu réew ñu taxaw nekk seen ginnaaw pour seen bépp besoin bu ñu am ñu fajal leen ko parce nag Euh, combat bi nii mu sooxee nii xam ngeen ne bu fekkoon ne Abdou Karim Gueye xurum xaq mi ngi fi ba léegi di fi nekk nam fi nekk woon kon yaakaar na am na jéego yoo xam ne instant yi dinañ ko passé parce que moo waral xam na ne nekku fi léegi Guy Marius Sagna mi ngi kaso benn yaanaa maara fi nekk ni yi dëgg valeur euh, si les rouges France frappe France dégagé keneen ak keneen léegi dañuy yéem a ñëw détruire ñooñu noonu gëm loolu ne la ñooñu c'est des corrompus ñii gëmuñu dara ñii alal lañ gëm ñii léeg lii lañ gëm te ñu waruñu basé wu si yooyu fekk yow gisoo leen bañ leen di jox xaalis gisoo leen ñuy jël xaalisu kenn parce que li leen xamee mooy génn wàcc ci mbedd mi xeex nañu ànd ak ñoom si loolu li nag bu ma la gisee ngay wàcc ci mbedd même bu ma xamee ne c'est des corrompus sax dama war a ànd ak yow xeex ak yow li la keneen di wax man li jëndi wu ma ko loolu loolu moom la engagé man gisuma ko bu ñu wootee ñëpp génn xeex ànd ànd ak sénégalais yi ñu génn manifesté wu parce que man dama ne sénégalais ñu dem dama ne man euh, Macky Sall est du sax waa diaspora bi la gën a ñi nga xamante ni tegu leen fenn sax est-ce que ñoom la gën a respecté que Sénégalais yi parce que demel li Sénégal di wax lijjanti wu ko faale wu ko ñun diaspora bi nga xamante ni nekkuñu Sénégal sax man dama jàpp ne ñu gën a engagé wu. parce que ñoom lu mu dee dee dee moom bu fekkee bëriwuñ bëriwuñ réew muñ woote nit ñu bëri dinañ génn manifester wu ba nga xamante ni dëkkuñu si dëkk ba sax dañuy génn jàppale leen ñun nag ñii fi à tout près dangay nekk yow ñu woote marché sa buntu kër laa wax sax fa la ñuy wootee marché bi nga nekk sa kër di seeraan ay football ak ñu ñàkk fayda yoo xamante ni amul benn njariñ teew ñu woote marché bi nga war a génn rek taxaw jëmmal ñiy marché manifesté wu si jàmm après nga waat sa kër mais comme que ngay dem di seeraan ay marché di seeraan yu ñàkk fayda parce que gis ngeen ne tubaab bi bu ñu wootee manifestation ñëpp ñooy génn manifesté kenn du nekk sa kër parce que gis ngeen euh, bi ñuy dugal réforme retraite bi dañu manifesté wu ba ba ba devant l'Assemblée nationale lu mat plus de trois heures de temps ñu nekk foofu euh, ginnaaw assemblée nationale di manifester wu ñun nag bu ñu wootee manifestation ñaan ñoo gëmu leen dara ñuy séddee kuréel bi gouvernement bi ngeen di liggéeyal nangam ak nangam loolu ba loolu bakañ kañ dafa jot ñun ñu ñu ñu xam ñun li ñu doon xam ne dañu am gouvernement boo xamante ni seen bopp lañ fi nekkal ak seen famille seeni doom parce que ñoom fexe nañ ba euh, diir biñ fi toog. te jii bu ñu leen woon tey tey tey tey seen seen seen famille kenn doodu si torox parce que gis ngeen ne Aliou Sall ni mu jëlee si si wàllu pétrole bi lim si am kooku doodul torox ngeen gis ne Macky Sall ni mu barbaare ay doomam yóbbu leen États-Unis ñu jàngi ñu dem am ay diplôme fas yéene liggéey ñëw di liggéeyaat si suñu gouvernement bi nga xam ne ñu doon gouverner depuis mille ba léegi ñoo continuer seen i doom ak seen i sët ñooy continuer di gouverner ñun ñi nga xamante ni dañuy xañ suñu àq suñu yelleef amuñu moyen bu ñu bu ñu liggéeyee baam am diplôme war a liggéey ñu xañ ñu liggéey boobu noonu ñun duñ mën a jot si yëf yi bay changé dafa jot na képp koo xamante ni jël nga yoon pour changé réew suñu réew Sénégal wala nga jël yoon woo xamante ni yaa ngi ànd jubal jubal réew mi di liggéeyal réew mi te yàlla rek tax ñu jàppale la nekk sa ginnaaw te ñu nag ba ñu si dara voilà foofu la amul journaliste amul musicien amul politicien amul dara. ñun képp kuy woote patriotisme gëm sa réew rek dañu war a nekk se ginnaaw ànd ak yow di la jàppale loolu lañ gëm parce que gis ngeen ne Macky Sall euh, parce que dañuy toll jamono boo xam ne gis nga si kanam tuuti wallahi képp ku génn gis nga bu fekkee lii ñu lii mu fi bay bayal ñu ngi koy seetaan ñun Sénégal yi ànd si gis nga si kanam tuuti képp ku génn di ne Macky Sall liggéeyul sax da lay jàpp yóbbu la si kaso bi képp ku ko wax da lay jàpp yóbbu la si kaso bi parce que si terrain politique boobu la nekk parce que xam na ne yëfu dictature lay def yëfi dictature rek lay gouverner suñu réew mi te dafa jot sénégalais yi xam ko ñu doon ay patriote bëgg réew mi nga xam ne moom mi ngi day essayer pour pour détruire bépp képp koo xamante yaa ngi wax naan euh, gouvernement Macky Sall bi jaarul si yoon wala liggéeyul si yoon wala Macky Sall li liggéey tewu ko si yoon nga xam ne day day essayer pour détruire kooku noonu moo xam lu mu mën di doon nag moo tax sénégalais ñun ñoo war a jug encore une fois ñu bañ ko ñu ñu ànd liggéeyal suñu réew ànd bëgg suñu réew. jëlee fi dictature bi nga xamante ni moo fi nekk boobu ba léegi di di di doxal nu ko neex si réew mi ñun loolu lañ waaw lii lañ wax saaga wuñ defuñu dara nag mais am nañ droit génn wax ne kat Macky Sall ni mu yoree suñu réew baaxul gisuñu suñ bopp suñ frère yi nga xam ne def nañ formation ba pare mënuñu liggéey ñu lii lañ wax te di si woo Sénégalais yëpp ñu génn ànd si ñoom ñëpp ñu génn manifesté wu aussi pour la libération de Guy Marius Sagna parce que Guy Marius Sagna mii bëgg a yàgg ci kaso bi te Guy Marius Sagna yéen Sénégal yéen la demaloon euh, camp yéen Sénégal yéen a taxoon mu sacrifier boppam dem ba palais nga xam ne lu ne ma na see fekk mënoon nañ ko see def lu ne mënoon nañ ko sax empoisonné ba te ba léegi sax paaseegul parce que fee mu nekk ne rek mën nañ ko defoon loo xamante ni bu ko nooyee sax mën na si jëlee feebar boo xamante ni mën na si jaaree euh, génn àdduna ba léegi dara gul te yéen Sénégal yéen a taxoon mu dem fa. yéen sénégalais yéen a taxoon mu sacrifier boppam yéen sénégalais yi yéen a mu bàyyi njabootam yéen sénégalais yéen a taxoon mu bàyyi lépp doon def pour dem pour dem pour dem euh, devant les palais pour ñu wàññi courant bi yéen sénégalais yéen a taxoon France taxul woon mu dem fa États-Unis taxul mu dem fa ak keneen taxul mu dem fa doomu boppam taxul woon mu dem fa Sénégal yëpp ñoo taxoon mu dem fa pour man pour wu pour ñu mën a wàññi courant bi courant bi kat bu ñu ko wàññee yaakaar naa Guy Marius Sagna bu fekkoon ne moom këram ñu ko fayee mais voilà yéen Sénégal yéen a doxoon mu dem pour ñu wàññi courant kon yéen Sénégal yéen a war a génn delloo ko njukkal yéen Sénégal yéen a war a génn bu ñu wootee marche ngeen génn yéen Sénégalais yi xeex bi kenn waru leen see jiitu kenn waru leen a jiitu si xeex bi te ngeen bàyyi seen kër yi ngeen di tëdd amul benn sens amul benn amul benn njariñ nit da ngay bëgg sa réew nit da ngay gëm sa bopp nit boo gisee ni ñu gouverner sa réew wala ni ñu yoree sa réew baaxul am nga droit génn wax parce que boobu ba léegi nag ñu nekk fii ñun Macky Sall dañu jëmloo fu ko neex fu ko neex rek mu diri ñu fa jëmloo ñu ba kañ dafa doy ñu wax ne eh France dégage Macky dégage parce que système bi mu yoree suñu réew mi Macky Sall amul dara lum ñu waxoon loo xamante ne nii def na ko Macky Sall lépp lum ñu mos a wax ay kàcc la lépp lum ñu wax ay kàcc la dara amu si tey jii nii bu fekkoon ne euh, président dañ koy toppee si loolu si wax loo xamante ne nii amut. ñu yóbbu la ci justice euh, wala ñu topp la si comme comme la am Amérique nga xam Donald Trump projet bi ñu koy topp parce que day diidal réew ma di leen xoxotal Macky Sall ci loolu lañ ko waroon a toppee parce que amul dara Macky Sall waxuñu dara lu am Macky Sall ba mu toogee ba léegi lu ñu waxoon yëpp ay kàcc la ak ay nar dara amu si ay kàcc rek ñun di toog di ko seetaan comme ça parce que nee nañ boo waxee ñu yóbbu la prison lan mooy prison xanaa jubluwoo si pour xeexal sa réew. xanaa jubluwoo si pour tabax sa ëllëgu réew dafa doy dafa doy li ñuy def nii trop c'est trop dafa jot ñun Sénégal yëpp ñu jug bañ ko ànd xeex ànd ak diaspora yi ànd ak keneen ak keneen ànd ak ñëpp ñi nga xamante ni bëgg nañu xeex syndicaliste yi ONC yi ba si sax ASC yi ñëpp ñu jug te bàyyi bu ñu wootee fo rek ñu gaaw benn concert am fenn ba ñëpp dem dagg ay billets yu deux cent mille ay billets yu cent mille ñi nga xamante ni amuñu sax luñ lekk wallahi da nga gis ku mel ni Youssou Ndour woote concert billet cinquante mille wallahi amuñu luñ lekk mais dañ koy taqale dañ jàpp buñ xamee suur bi ñu commencé di dajale ba koroog suur bi ñëw pour ñu mën a am luñ demee voilà loolu mooy patriotisme ñi nga xamante ni seen bopp rek lañ fi nekkal ñi nga xamante ni seen i njaboot pour tayla pour euh, préparer seen njaboot ëllëg ñoo ñu mën a déplacé wu pour ñu jug ñun Sénégalais yi mais ñi nga xamante nii dañuy woote pour ñu marche dañuy woote pour courant wàññeeku dañuy woote leneen leneen ñooñu mënuñoo yëkkati voilà loolu mooy Sénégal en tout cas maa ngi maa ngi maa ngi maa ngi maa ngi ñaaxaat jeunesse bi yëpp sama sama mbokku jeunesse bi ne leen ñu jugaat bëgg suñu réew xeex ngir suñu réew jàkkaarloo dictature mag Sall bi nga xamante ni moo fi nekk di gouverner réew mi nu ko neexee di def affaire affaire dictature rek yor suñu gouvernement bi di gouverner dictature ba dem ba Sénégal yëpp xamal ko seen bopp. ñun voilà loolu la ñuy woote dañu woo Sénégal yëpp ñu génn gën a xeex ñu génn xeex bi xam ne xeex bi du ma sàmm du xeexuma demba xeexu ñëpp la ñu génn jàpp si ànd ak nit ñi mars bu jeexee ñu ñibbi pour wane ne Macky Sall ni ngay gouverner neexuñu aussi Guy Marius Sagna bi ne si kaso bi da nga ko war a bàyyi mu ñibbi këram ñun loolu la ñuy woote woote wuñ violence woote wuñ kenn ku yor xeer woote wuñ dara parce que àggaguñ fa parce que fi ñu àgg nii mooy Sénégal yi génn wane seen naqar génn si mbedd mi wane seen naqar wane seen naqar si li li Macky Sall di gouverneur réew mi te dara tegu si yoon wane seen naqar ni li ñu Macky Sall digoon pour ñu fal ko 2012 ba léegi defu si dara wane seen naqar ni li lim ñu waxoon ne gouvernance sobre et vertueuse section sobre et vertueuse defu si dara wane seen naqar ni dafa waxoon du làq benn sàcc képp koo xamante ni da nga sàcc dañ lay teg si yoon te jii nii sàcc yi gën a mag Macky Sall moo leen làq te jii ñi dàq sàcc ay milliards ñu ngi si gouvernement Macky Sall nekk te jii ki fi ëppale lum sàcc si milliards nga xam ne bu fekkoon ne maanaam jongante la moom moo jël coupe bi nga xam ne moo fi ëpp lum sàcc si ay milliards si gouvernement Macky Sall nekk rakkam la njabootam famem ay nijaayam ay jarbaatam te ñoo fi dàq sàcc suñu milliards yëpp ñoo ko sàcc loolu ba kañ dafa war a doy dafa jot sénégalais bi yëpp taxaw engagé wu ju xeex jàkkaarloog dictature mag Sall bi nga xamante ni moo fi nekk depuis boobu ba léegi dañuy noot te kenn du wax dañuy wax nag si nii wala si naa maa ngi woo ñëpp ñu ñëw si marché bi ñu ànd marché pacifique kenn koy dem ñibbi sa kër ñu bàyyi Guy Marius Sagna mu ñibbi këram parce que père de famille parce que dafa am njaboot war leen war leen a dundal parce que dafa am leneen leneen yeneen soxla yoo xam da war a doxi foofu laay woo Sénégal yëpp. te ñu bàyyi ñun ñuy jaxaseel naan ñu noo ñii seede corrompu ñii di woote lii gëmuñu ko wala nangam ñun gamuñu loolu loolu ñoom buñ corrompé loolu ñoom la engagé mais ñu wooyee ñun nañ génn ànd ak ñoom xeex bu xeex bi jeexee nag kenn ku nekk dem sa yoon foofu la ñu woo Sénégal yi voilà voilà mais duñ fi nekk naan ñu naan ñu ay non collectif ñoo lank bi ñeneen woon si ànd la ñu bokk ñoo fa nekk ñu naan ñu voilà parce que Y'en bi nga xamante ni moo jiite collectif bi c'est corrompu ñu naan ñu voilà parce que Y'en a marre léeg ñun lii ñun loolu ñun li ñu gëm mooy liñ liñ ñu woo li ñu Y'en a marre woo si xeex wala li ñu nitu dëgg valeur woo si xeex wala li ñu frappe frappe dégage woo si xeex ñun xooluñu lan lan lan lay def wala lan moo nekk si biir ñun nañ génn ànd xeex ak moom loolu lañ war a def mais bañ a nekk naa nañu def yoo xamante ni yoo xam ne kenn xamu ko affaire jaxase ñun gëmuñu loolu maay woo Sénégalais yëpp le 28 bii na ñëpp génn képp fépp waay mën a jugee waa Touba maa ngi leen di woo Thiès ñëpp bàyyiwuma kenn képp ku mën a dagg sa billet avion pour ñëw marché nang ko def pour wan wan Macky Sall ne ko kat ni mu gouverner suñu réew mi neexuñu voilà loolu laay wo Sénégalais yi parce que tey vidéo bi tey loolu la woon euh, fa lañ doon ñëw ak yéen di leen jaajëfal di jéggalu si si si si guddaay bi di wax ne lépp lépp loo xamante ni wax nañ ko rek muy loo xamante ni lu jaarul yoon la ay doomu aadama lañ euh, doomu aadama day juum. lépp loo xam ni jaar na yoon euh, yàlla suñu borom la euh, aussi liñ si jublu rek mooy defar liñ si jublu rek mooy wax ak yi liñ si jublu rek mooy yee peuple sénégalais bi liñ jublu mooy wax ak sama sama classe gi nga xamante nii xamuñu lan mooy patriotisme liñ si jublu mooy wax sama classe gi nga xamante nii bu benn Youssou Ndour woote woon fii concert maa fay njëkk te bu ñoo lànk woote mars du ma dem wax ak sénégalais nga xamante nii mi ngi toog këram ne facture courant dañ ko duble dañ ko tripler tey jii nii mi ngi koy fay mais ñàkk pexe parce que ñàkk pexe pexe la mi ngi koy fay mais déewul bu ñu wootee mars du ñëw wax Sénégal bi te ba pare ñu koy indil facture euh, facture cent mill wala facture quatre-vingt-dix mille ak yeneen bor yi xam ne loolu lay def te mu war koo fay mënu koo fay di woo Sénégal yëpp képp kuy père famille ñu ngi lay woo ñi ñaan ngeen ñëpp na ngeen bàyyi seen liggéey ngeen ñëw ngeen mars parce que toll jamono bii jamono bii tolluñ foo xam ne sax dañu toog war a mars parce que deux heures de temps bi ñuy mars wala trois heures de temps mars du ñu wàññi dara ñuy seetaan ñu ñu ñu ñu dictature di yor réew mi foofu la ñu woo Sénégalais yi ñu ñëw jàkkaarloo dictature Macky Sall bu bon ba nga xamante nii jom Macky Sall mbalit la Macky Sall dafa Macky Sall instant bu fekkoon ne maanaam dañ dañu teg si yoon rek dañ ko dañ ko war a jël rek tuuri yóbbu sa sën ba parce que mbalit moom li si moom yóbbu sa yóbbu sa àll ba rek ñu war a moom parce que mbalit ko war a jël rek yóbbu sa sën ba mu dem yoonam bu ko dee ñu noppalu ñu am keneen koo xam dina ñëw pour liggéeyal suñu réew parce que Macky Sall sax pour man Macky Sall boo bu doon sama duñ ko bàyyi sax muy àgg ak ñun deux mille vingt quatre Macky dafa waroon a démissionné dafa waroon parce que parce que lépp lim lim ñu waxoon te defu ko rek loolu war naa mën a tax mu démissionné bàyyi nguur gi nu mu gën a gaawee nag xam ne xam ne xam ne li ma sa wax Sénégal yëpp ay kàcc la ay nar la ay fen la amul dara lu wax Sénégal lu mu def Macky Sall mooy dictature bi gën a bon ci histoire Afrique Macky moo gën a moo Macky Sall moo moo yées Alpha Macky Sall moo yées Yaya Dia Macky Sall moo yées bépp président bu nekk si Afrique pour man Macky Sall moo la yées dafa jot na ñun seen Sénégal yëpp ñu taxaw jàkkaarloo ak moom xeex ak moom pour man ko ni ni nga ni ngay yoree suñu réew neexuñu voilà tey vidéo bi loolu la woon di leen jaajëfal gaa yëpp di leen sant aussi di leen di leen di leen remercier euh, jaajëf waay gaa yi